78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 buur fay naa leen di nuyu journaliste yi fi teew yëpp di nuyu suñu doyen El Hadj Khadim Samb mon ami mon frère Fallou Ndiaye Yande Diop Pape Thialis staffu Paf production nuyu ñëpp mbooloo mi fi daje. ginnaaw bi CNG sant ñëpp maa ngi ñëwoon ci réunion bi suite convocation bu CNG def concernant ci combat Papa Sow Siteu ñun doomi réew mi lañ. ci réew mi lañu dëkk euh, yàlla nattuñu ñuy organise làmb pour bëgg Sénégal bëgg parce que suñu cosaan la comme ni ko président Khadim mii di waxe bi loolu amee yàlla indi ci ndogal ndogal li du Papa Sow du Siteu yàlla moo dikk te yàlla bu dikkee comme ni muy dikkee neneen jaam bi day dangu ndogal ci nangu ndogal boobu laan Papa Sow ak Siteu làmb jiñ ma yoreel bàyyi naa ko ci suuf pour que Sénégal am jàmm réew mi am jàmm ñu am jàmm combat bi yàgg na metti na te xëy na lii la ci yàlla dogal lii la ci yàlla nam man nangu ko nag waaw. xam nga man bu ma xasee ba régulariser combat fii. dégg naa sax benn mbër na day dem sama kër jëli xaalisam mais yéen ñëpp xam ngeen ni loolu euphorie la. Mhm. euphorie la. Mhm. moo tax tele ak rajo booy wax nanga nga ànd ak sa sago. Mhm. mais ku yàgg ku dem ba am benn temple bi nekk star bala nga wax da ngay xam li ngay wax promoteur mënul lu dul nas joxe avance ci biti avance bi sax normalement ci biir CNG lañ ko joxe. bu lamb bi di jub si nga dem jox CNG reliquat bi nga régulariser kon xam nga ni promoteur bi bu desaloon 15 lamb bi dootu am. Mhm. kon xam nga ni xayti mu laana man yoreluma kenn xaalis tey réew mi fu ma neex lay daagu def naa maa ngi dugg léegi ma dugg ci suma préparé dugg vingt ans amul lu ma deful ci làmb ndax yéen ñii di journaliste mës ngeen di dégg mbër taxaw buntu kër Pape Abdou Fall ne sama reliquat ak sama xaalis laay wër wala Pape Abdou Fall am na sens interdit moo ma yoreel nangam ak nangam du am te du mës am ci barke Cheikh na Cheikh Sall kon mbër yi man li ma war loo def naa ko boo xoolee réunion ba mu ngay continuer partie yëpp soo représentés wax ba ma jëlee kàddu xamal naa leen ni maa ngi gërëm suma doomu ndey Fallou Ndiaye Assane Ndiaye Yande Diop xaadim Ndiaye ak euh, euh, ah ñoom Cheikh Yadd ak ñoom Fallou Ndiaye Assane Bawol production parce que lépp ak staffu PAF production lépp ñoom ñoo ko yoroon ba ma jëlee kàddu xamal naa leen carrément li nga xam ni man kon combat laa signé woon coow li ci jib jib na ci Sénégal fi mu toll nii ak Gaston Mbengue suma frère maa ngi koy gërëm di ko sant sonn na ci ba biig xaaju guddi mu ngi may woo donc maa ngi koy gërëm di ko sant taxawaayam rafet na loolu la ñuy doyee mag euh, mag day defar gërëm it président Khadim bi ak Pape Thialis sama mbokki promoteur yi mais li nga xam ni man la ko mbër yi yoreel muy combat bis ni tey teg naa ko ci suuf pour l'intérêt général du Sénégal. est-ce mais Siteu sama doom la. Siteu bu amee sept mbaa huit combats cinq yi maa ko tëgg xaw ma six yi. 2011 laa commencé tëgg Siteu. au moins moom benn xaar ma yàlla. dafa fekk ni rek. Euh, euh, bu sa yaram tàngee ngay ànd ak ay xale ku nekk di wax parfois moo tax euphorie baaxul euphorie baaxul nañ leen di ànd ak suñu sago gis nga bu sa yaram tàngee buñ la tàllalee micro bàyyil ci suuf boo demee ba toogaat erreur yi dafa bari mais nag on comprend sont des jeunes ñun am nañu doom yi toll ni ñoom duñu fi toog Siteu tey bu ma ko soxla woon danaa ko woolu mu ñëw sama kër ma tëgg ko Papa Sow sama rakk la bu ma ko soxla woon danaa ko woo mu ñëw sama kër ma tëgg ko lépp parce que ñun yàllaa ñu nattu ak làmp muy président Khadim di Thialis mi di Fallou Ndiaye ay fatiguement rek la ñuy daj ci làmp la ñu fa ca am mënoon nañ ko yóbbu suñu kër bu soobee yàlla bu desee ci man benn mbër CNG du ko desal dërëm la ma diggee ñoom ci sponsor yi du ma ci desee nit dërëm danaa leen ko fay pour l'intérêt général du Sénégal et de la lutte parce que làmb soxlawul loolu jërë ngeen en français deux mots mais écoutez, avant que je parle français, est-ce qu'il y a des radios qui sont là ou bien des télévisions qui doivent quand même faire des émissions en français? Ah, parce que pareil cas, quand même. nous sommes venus ici suite à une convocation du CNG. Cette convocation est relative au combat Papa Sow cité. Donc euh, j'étais venu répondre à cette euh, invitation du président Birassène. En passant, je remercie mon grand frère qui est là, El Hadj Khadim Samb, Fallou Ndiaye, Thialis, Hassan Bawal, Yande Diop et le staff Président Cheikh et le staff de PAF Production. Donc euh, moi en ce qui me concerne, lorsque j'ai été interpellé sur la question j'ai décidé de tout laisser tomber pour l'intérêt. Et mon ami encore, grand frère Castomber, qui chaque jour il m'appelle et il échange avec moi, sur, avec moi sur le sujet. Donc c'est pourquoi j'ai décidé, pour l'intérêt général de la lutte et du Sénégal, de tout laisser tomber et j'ai demandé solennellement, parce que le dernier mot ne me revient pas, le dernier mot revient au CNG de lutte. Parce que quand un combat est régularisé, Donc je n'ai plus de mots parce que s'il me restait 50 francs sur le reliquat, le combat n'allait pas être organisé. Donc j'ai appris qu'il y a des lutteurs ou bien des gens qui demandent quand même que je leur paye. Je leur dois absolument rien du tout. S'ils ont à parler, ils n'ont qu'à s'adresser au CNG. Mais j'ai demandé solennellement au président euh, et à la commission règlement intérieur et discipline entre autres de payer les lutteurs. Parce que nous nous sommes des promoteurs pour l'intérêt de la lutte pour l'intérêt du Sénégal hein et pour l'intérêt de la paix ici au Sénégal moi j'ai décidé de tout laisser tomber Siteu est mon fils Papa Sow est mon jeune frère demain si j'ai besoin chaque euh, de Siteu ou bien de Papa Sow je n'hésiterai pas à les appeler de venir vers moi afin de discuter sur un éventuel combat. Pourquoi Parce que nous sommes promoteurs, ils sont des acteurs. Mais aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, avec vraiment le bruit, le Sénégal n'a pas besoin de cela. Je vous remercie. Trois espoirs.